président de la république Macky Sall mere na loolu jëwriñ bi yor wàllu wér yaram bi di Abdoulaye Diouf Sarr lay xeeñ seen diggante neexul dara ndax jamono ji ñuy àddu ak yéen dimanche yee mook fukki fan ak juróom-ñett lii di coronavirus ma ngay gën di yokk junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñaar 1722 cas la ñu am tey bokk na ci 744 cas contact am na tamit 978 communautaire mooy li nga xamante ni moom moo gën a tiital réew mi njiitu réew mi Macky Sall euh, ci euh, li nga xam moom mooy ndajëb ministre bañ doon amal àllarba bi ñu paase moom doon na soññaata ministre bii di Abdoulaye Diouf Sarr ngir mu def lépp ngir ñu gën a mën a taxaw euh, ci xeex jàngoro bii di coronavirus jarati rawatina lii di troisième vague bi nga xamante mi ngi mel ni tulleeg màll te tiital askanu Sénégal bi yëpp moom président de la République Macky mu mel ni ki daal xelam teey na loolu ci kii di ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr ndax dañu gis ni rek fi mu nekk nii amatul mën-mën amatul tamit xam-xam ngir daal di mën a yokk euh, wala bokk euh, xeex lii di jàngoro bi di coronavirus ndax ni ñuy gis ni muy lawee président soññoon na ko ngir mu daal di xeex ba troisième vague du fi am. waaye France daal di xëddeem bokk na ci tamit li nga xamante ni moom mooy ay jafe-jafe yi nga xam ñu ngi koy nemmeeku moom Abdoulaye Diouf saar bi mu fi nekkee ba tey gis nañu ay jafe-jafe yoo xamante ni dañ ko ràññee ci biir l'hôpital yi bokk na ci ay respiratoire yoo xamante nii amul ci yenn hôpital yi bokk na ci tamit machine à laver bokk na ci ay malades yoo xam ne dañuy tëdd ci ay darab yoo xamante ni day fees dell ak jàngoro ndaxte duñu ñu ko nettoyer bu baax bokk na ci tamit li nga xam ne moom mooy ay médecins réanimateur ci yenn ci ay diwaan yi nga xam ne sori nañ loolu maanaam ci région yi bokk na ci ñun liim benn rek ci gynécologue benn cardiologue kese ak benn pédiatre kese ci benn hôpital bu niveau de muy lu doy waar bokk na ci tamit. fan yee ñu génn hôpital bi nga xam ne dafa lakkoon ba juróom benn ci ay xale ñàkk ci seen bakkan waaye ba tey jile rek amul benn explication bu leer bokk na ci tamit gis nañu ñenn ñoo xam ne ay kàngam lañu ci wàllu wér-gu-yaram ñoom dañ leen daal di effacer. kii di docteur Abdoulaye Bousso coordonnateur centre des opérations d'urgence sanitaire ak i tamit ki nga xam ne moom mooy docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye bokkoon ci ministère de la santé publique moom itamit dafa jékki-jékki rek daal di ne mes kenn gisatu ko waaye tamit kii di professeur Seydi moom itamit mu écarté bu baax a baax a baax ndax gis nañu jéego yi nga xam mi ngi koy def ci àdduna wërngal këpp ñu daal di koy seede ci xeex yenn jàngoro yi nga xam day faral di am rawatina coronavirus liggéey bu mucc ay bu ci def waaye tamit dafa mel ni kii daal kii di président Macky Sall mere na lool Abdoulaye Diouf saar ana lan la ko meree muy lu mujj li nga xamante ni ñu ngi koy ŋawti ŋawtee ci suuf muy moom Abdoulaye Diouf Sarr dafa doon dox ci maaynu lébu yi ngir ñu ngi daal di yuuxu ca kaw ne moo nekk seen di candidat pour maire bu Ndakaaru kon daal fi mu nekk nii boo moytul Macky Sall bi nga xam ne dafa bëgg troisième mandat est-ce que xel xalaat na mu bàyyi fi Abdoulaye Diouf saar ci wàll wér-gu-yaram bi nga xamante nekk na lu loon lu doon loo xamante ni soxal na askan bi lool lool lool ak yenn jafe-jafe yi ñu ciy jànkuwanteel moom daal seen diggante moo moytuwul ah ci ngoro gu tas lay mujje